بسم الإله كبرك بسيخ فدلمي بور يلا دلنو أي مقام يلاو بسم الإله كبرك بسيخ فدلمي بور يلا دلنو أي مقام يلاو بسم الإله كبرك بسيخ فدلمي بور يلا دلنو أي مقام يلو وقلبك البكاء سدات ماي بغوي تيجي موي في سنغب غور ñepp yalaw ko ka di cheikh fallu ko ka mag mo ray mbir mo gën ñu ñëk ña gën ñi ko ka di fallu tay pour kër gu mag fii ci cant sëñ fàllu Fallou daayira Mafatihul Bichri sixième édition tey dañoo ñëw pour jàppale leen ci seen cant bi comme nu muy demee chaque année tey nag dañu ñëw xool soxna si waañ wi seen xidma yi naka lay demee ak jëwriñu waañ wi ñu fi nekk ci daare ji ñi fii nii suñu kanam ñu ngi am jëwriñ Baye Abdou bisimilah rahmaani rahim. bisimilah waaw ñoo leen siyaar bu baax a baax a baax waaw di rafet di rafetlu maam seen teewaay. waaw fi mu ne nii maa ngi maa ngi maa sama sama sama jëwriñ moo nekk nii jëwriñ taala moom moo nekk jëwriñ jëwriñ cant gi yëpp man maa yore finance bi mais ñoo ngi ñoo kontaan bu baax di rafetlu seen teewaay euh, di wax ne maam cant gi bañ ko dalee def ak léegi yokkute lañ ci gis ndax euh, premier édition si je me bien euh, ñoo ngi ñoo ngi defar ceebu jën lan defaroon jëndoon juróom-ñetti ginaar fi mu ne nii ñoo ngi suñ sixième édition tuddee ko sin mo sin Abdoulaye Fall Ndar te ñoo ngi defar suñuy suñu nag jënd ay ginaar loolu mooy maam sin faalu boo koy defaral ah, da ngay da ngay gën di dem ci kanam rek waaw moom moom mbaay ma bàyyi jëwriñ moom mu am yum si sànni sànni ay kàddu waaw bu ko defee ñu wéyal liggéey bi bisimilah sin taala salaamaaleykum maa ngi leen di ziar première yéen ñi ñëw yéen soxna yi maa ngi leen di ziar di ziar képp ku fi teew di rafetlu teewaay bi di wax comme ni ko Baye waxee rek sëñ bi moom amul tànk ginnaaw tànk kalam rek la am noo di soobee rek noonu nga si taxee ñoo nag dañ see sóobu ba jeex waa comme ni ko Baye waxee bañ koy tàmbali metti woon na trop ñu tàmbalee ay ceebu jën juróom-ñaari ginaar tey rey na nag def ay ginaar def ay laax wàcce ay kaamin lépp du ko jagleel sëriñ Fallou mi tax ñuy def bu loolu weesoo ñuy nuyu ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu képp ku ñu yëg ba taxaw fii ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la nuyu di la jaajëfal di jaajëfal ñépp man nag am seen fay dañoo baax rek naan ma jëwrin waaye fii ku fi teew ku ne jëwrin ga ku fi teew ku ne jëwrin ga waaw man nag maa ngi nuyu ñëpp di leen wax nag nañ jàpp rek ba na bàyyi sëñ Fallou moom moo am pay yàlla nañu pay ñun ñëpp ba xéewal gu nu bëgg si cant gi suñ borom mottali ko way kontaan naa trop dama ko baaxewul nag muy wax dama kaa mënul waaye nag danaa forcer tey bisu wax la boo defee lu rëy il faut nga wax ñun dañoo bëgg sëñ fàllu suñuy xol yaakaar sëñ fàllu wóolu sëñ fàllu nekk si pàkk sëriñ fàllu ñu dem si ay kilifa nag ñu am lu ñu wax daan ne pàkk bii fii ñu nekk si kër gu mag boo yuuxoo waa kër Serigne la njëkk a dégg bu yuuxoo yuuxoon tey jii waa kër Serigne ñu njëkk a dégg kon na kon war nañ am yeneen tànk yuñ fi war a taxawee ñun ndawi njaareem war nañ am yeneen tànk yuñ fi taxawee li may tànki nag mooy tànk yi gën a lu si yoonu sëriñ bi kenn nekk fa ku dul moom moom doo nga fi ne ku sëñ bi du kenn kon nag damay ñaan suñ borom mi man say man a àggale ma àggale comme niñ ko déggee rek kàddu yi rafet na lool macha allah euh, da yaram daw na yaax des na ndax mbirum sëñ bi moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la jëm te ñun ñëpp euh, gis nañ ko te amul ñu ciy werante comme kàddu yi nu mu rafetee rek ñu wéyalaawaat liggéey gi ba ci kanam kanam di ko commencé toujours si bisimilahi rahmaani rahim di ko santé ci alhamdulilahi rabil alamin jerejeuf soxna jaariyatu comme ni nga ko waxe rek liggéey bi amna solo waye itam ni nga dooree amna solo solo jeufal nañ la bu baakha baakha baakha bax xamna ne dina ñewat ci yow ci kanam rek waye bala bobu comme xuus nañ rek ba daal di dugg fi nga xamantene ni di ci waañ bi dañuy fas yéenee jàkkaarloo ki nga xamantene ni nii moom kenn la ci ñun muy suñu yaayu bopp moom nag moom moo jiite waañ bi dañuy fas yéenee moom rek daal di waxtaan ak moom euh, yaa booy ñoo ngi lay ziar bu baax a baax tey nag ñu daal leen di fekk si fii euh, ci kër gu mag euh, ñu fekk leen ci cant gi ngeen nekk ci waañ bi ñu bëggoon xam nag xidma bi nan ngeen ko dundee. waaw ñoo ngi sant yàlla bu baax li julli ci yonante bi sant suñu ñaari waajur sant bu baax ban fekkewaatee bis bi. yàlla nañu ci dugg ak bisimilah rahmaani rahiim mi génn ci alhamdulilah rabbil aalamiina ñu kontaan ci loolu nag ndax ku am say doom ñu ñu sant sëñ Fallou da ngay sant ndax moo noo nekk ci leneen te buñ ci nekkoon duñ ci mën dara kon dañuy sant yàlla ba sama borom xirtal leen ci sant sëñ Fallou kon yàlla na ko yàgg a taxaw at yu bari juróom-benni at ci ji nag kon yàlla na taxawaay bi yàgg ci sëñ Fallou jàppal leen boppam cant gi ñu yàgg koo fekkee ak yéen ñëpp ak sëñ Fallou Eh, ya boy ñu bëggone xam ci wañ bi eh, la nak lan ngeen fi préparer lu melni ni añ bi ak reer bi la nak lan lay doon. wa añ bi mom ay dañoo def eh, ñent mbana ay ben mbana soos wa reer yi ñu bëggaat ñent mbana def fukki saako vermicelle ak ñaar wa loolu la lañ bëgg ak fukki ginaar ak juróom. añ ay ceebu yàpp la wa ya boy ñu daal di gis ne nak yaangi ngi mbolo mi ñu dila jappalé ci wañ bi ban yëg-yëg nga ci am. maanaam kontaan ci loolu nag ban yëkkatee lépp teg ko sama loxo ma ci sant bu baax nag di ñaan yàlla taxawaay bi yàgg ak mboolem ku ma ci jàppale ak sëñ Fallou. Euh, yaa booy ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ah, ci noonee nag ci la ñuy daal di wéyale liggéey bi ndax nag ku nekk xam na ne fii bu ñu fi tollee dañuy daal di euh, nekk ci li nga xamante ne nii moom moo di préparer sóor te bu ñu nee sóor nag xam ngeen ne góor yàlla yi ñoom ñoo fi.